tey Sénégal dina jouer ak Afrique du Sud match amical ci jigéen mhm. mm-hmm. mais c'est la fédération qui paye mm-hmm. les billets d'avion les hôtels mm-hmm. qui prend en charge les regroupements et toute l'organisation que ce soit les juniors les cadets les filles l'équipe locale et l'équipe olympique donc toutes ces équipes là fédération xaalis bi mu yor moom loolu la leen di gérer. yomb mhm. ay employés di leen fay. Mhm. donc malheureusement nag mhm. ñun sénégalais xamuñu liggéey dans la durée Aliou bu fi defuloon huit ans yi mën naa am fekk ba tey gagné wuñ coupe d'Afrique. te foo dem ñu ne la yéen seen maillot bi maillot de bain la parce que ah. amul étoile. mi ngoog ah, cantal ngërëm ñeen na la amoon na solo sport bi day baax nag mhm. euh, ñu ñuy am bés yoo xam ne dañu ci waxtaane bu ko defee sénégalais gën a xam fu mbir yi toll euh, laataa ñuy euh, tëj rek dafa am benn vidéo boo xam ne dafa nekk di def polémique sur les réseaux sociaux mhm. muy vidéo bi nga xam ne Djibi njaay moo doon akolaatante ak Antoine Félix Diome loolee nag tax yenn ci ñi nga xam ne ñooy patriotes yi commencé di ko xasaka xaxar ci lu ñeel àndandoo boobu li ndax xam nañ di daal moom mboolem di xew ci dëkk bi moom euh, Antoine Félix Diome lu nit njaag mooy njaag loolu la askan wi wax donc euh, ana lu waral. <laughs> coow li li. est-ce que jar na complice ci accolade nit. chacun est libre accolade ku mu neex nuyu ku mu neex xaritoot ku mu neex gis nga. Mm. dafa am lu ma fi waxoon du ma si yàgg parce que waxtu wi mu ngi dem. dafa dafa am lu ma fi waxoon ne leen. <laughs> bu leen benn politicien tax ngeen xeex. Mhm. bu leen benn politicien tax ngeen xuloog seen nit. Mhm. bu leen benn politicien tax ngeen bàyyi seen nit. Mhm. guddi ñoom ñooy bokk toog reer. vendredi ñooy lekkandoo cere. cere mboobu wax naa ko répété ko cere kër Farba Ngom. waaw waaw ñooy bokkandoo lekk cere. nañuy jàpp jour boo xam ne ñooy jàppalante ñooy demante ngénte. surtout ñoo xamante nañ seen coro yi. Mm. ñenn ñi bu ñuy takk jabar nit ñoo leen takkal jabar. gis nga pour man hormis la politique aussi ñun ay sénégalais lañ. on a des relations humaines ak man de man de Zeyna kenn du ma wax jàppal Fatima bawul Fatima. si Jibi Gueye Ndiaye moom wax dëgg moom day déglu nit ñi ñu naan kan bul accolade diw bul accolade diw. Hmm. kooku moom responsabilité lam na hmm, am na droit en tant que sénégalais. Hmm. mais Antoine Diome c'est un sénégalais comme tout le monde. même bu fekkoon un criminel la sax. bu génnee ba tëdd penam ba génn c'est un c'est un sénégalais du tey mu nekk sénégalais. ci Jibi Gueye war na dajeeg moom saafoonteeg moom nuyoonteeg moom accolaatanteeg moom ñuy demalante di dikkalante. en dehors de relation bi nga xam ne. en dehors de mais est-ce que est sax ñi naan Djibi Gueye Ndiaye euh, warul woon am ak moom yenn affinité dañoo war a jàpp ki leen di Antoine Félix Diome mbaa Djibi Gueye Ndiaye moom moom mooy jàppee. ci noonu Thiam balaa may ñëw ci yow Pape officiel moom dafa fësal lekk benn euh, poste ci réseau yi près de quatre vingt morts sans suite plus de deux mille emprisonnements des centaines d'handicapés à vie ji euh, Djibi Gueye Ndiaye ose s'éclater en public avec le sinistre poussin de la place de Washington. Mmh. un peu de respect pour les morts waay. waaw xam nga poste bi Pape Sané dugal na xam nga dafa am dafa am benn mbir mooy. Hmm. Euh, est-ce que Antoine Diome li mu def Djibi Gueye Ndiaye la ko def. circonstance yi la moom moo kii ki kay ki kay fay nag le truc mooy que ni patriotes yi ñan ñooy patriotes est-ce yi ñi ñu nekk ci réseau sociaux bi du loolu. Pape Pape Sané bin moo bind poste bi. oui oui Pape mooy mooy ki nekk Walf. waaw lui olo euh, on comprend parce que dafa nekk di di di di di dénoncer parce que la personne li mu def Sénégal la ko def te Sénégal dina jàkkaarloog moom bis bu jotee mais entre daje bi dafa mel ni nga ne ma rek pourquoi Ousmane Sonko fekk euh, mam booy Diao Casamance ñu daal di accolade te pourtant ay adversaire politique mhm, lañu mhm, mhm, nit ki aussi wàllu humanité ci wàllu gis da ngay nuyu nit ki ngeen di accolaadanteex yooyu mais li nga xamee loolu nga amee dëkk bi dëkk bis bu jotee dana la ko fay man noonu laa ko gisee mais bu euh, ñu woon foofu aussi romante comme si euh, ñu ko wax te ay ay ay kii lañu loolu loolu mm, dara vite fait la rek à la vite fait la bon c'est spontané quoi plateau bu ñu génnee ñooy dem naa ni mais bu ñu nekkee ñoom ñaar daal li mu ameel li mu ameel peuple bi du Jibi Gueye Ndiaye la ko ameel te bis bu ko waree fay nag peuple dina ko fay wala mi loolu <laughs> da nga am beneen liggéey tribunal d'accord ah. ma participer rek te que comme ni ko directeur bëggee information ku ne da ngay jóg wuti ji ko parce que suñu téléspectateurs yi ñoo ko soxla te procès bi léegi mu door tribunal moo tax d'abord man li ma ciy wax d'abord dama leen di remercier ci nekkin beeg tey suba gi nu xew xew mi teel ñëw ñu dajaloo waxtaan nii jàll ci sujet yu am solo di leen remercier bu baax di si li ma ciy doole nag mooy xeex bi dafa jeex. Mm-hmm. nit ñi mun nu dëkk ci xuloo ñu àdduna mm-hmm. Sénégal ki koy wut ak ki ñu ko joxoon ña waroon di campagne ak. Mm-hmm. ña bokkoon si élection yi ñenu ñenu validé seen candidature ñu ñu validé wu. ñun ñëpp ñoo bokk réew mi. te ñoo bokk gox xombal. dañ di benn sax. kon le plus important mooy bu nu wutee. bu ñu ci wut ku ne am nga droit tàllal sa loxo wut. Mm-hmm. bu far jotee ku ne am nga droit far fa la neex su jàppale jotee ku nekk am nga droit jàppale ka la neex. Mm-hmm. waaye bu booloo pour réew mi jotee. Mm-hmm. dafay nekk devoiru ñëpp. te ñun tamit politique yàgg na fi indi ay problème si nit ñi waaye politique tamit lu mu mës a indi problème jubalewaat na ko. ndax Abdoulaye Wade da daan xuloo Abdou Diouf ba mu saf saf. Mhm. xeex xeex bu métti. xëy suba ñu dugal ko ci gouvernement bi. mu séddale ay ministre am. gën la de. xeex na fi socialist ànd ak ñoom di def caravane sunu papa Mbaye Jacques Diop yal ko yàlla yërëm genn tëngeej yëngal tëngeej. te teewul ba loolu jeexee dafa ñëw jàppale Abdoulaye Wade. Woré Sarr sax nag génn na PDS. Woré Sarr mi ngi nii tey génn na PDS suba mën na ñëw. mën na bokk maa la wax lii de. kon ñu ñoo bokk. waaye Mimi Touré ak Ousmane Sonko rek. Mimi Touré Ousmane Sonko. <laughs> ba mu naan kat dama ah? la demee ci politiciens yi tamit nanu bàyyi di éviter di woo nit ñi ci luy taar réew mi. Mhm. comme ñoom dañuy ànd tey suba ñu bàyyi te suba ñu àndaat. Mhm. kon tamit population bi yéen tamit bu leen politicien woowatee ci mbedd mi mm. dem leen si dem bu yam bu leen si dem ak seen bakkan dëgg la de yooyu yëpp tamit dafa jar a bàyyi xel. Mm-hmm. loolu laa si doon message di leen na jàmm. di leen wax ni maa ngi ñëw dem. Eh, <laughs> <laughs> tribunal léegi léegi. tribunal jëli xibaar mi tamit beneen ponk bu ñu waroon laal tuuti du am commentaire Serigne boobu benn site bu bu mag a mag bu am solo euh, leader 221 moo fësal lu ni mel euh, Serigne boobu nag euh, dañu ab livreur moo ko sàcc lu tolloog 20 millions ba tey bu ñu sukkandikoo ci leader 221 moom nag démb wala sax mercredi lañ doon taxaw fële ca tribunal bu bu ndakaaru kooku nag ma ngay wuyoo ci Daouda Diouf Daouda Diouf nag euh, la ñu jox tees ni la wommi rek mooy treize euh, télé yoo xam ne daal lu tolloog ci vingt millions la bu ñu sukkandikoo ci presse Afrique waaye nag ca noonee nag ba ñu demee moom nangu na ni moo ko def waaye nag la ñu lim ci ci ci ci koppar bokkul ak li nga xam ne nee na moom moom la yóbbu. Mm-hmm. waaye nag keneen ci koo xam ne nag woo nañ ko ci seede yi ba mu ñëwee dafa xam ne ni rek. yàgg na di remarqué ni wàññeeku am na mi ngi sàcc sàcc yooyu bagage yaa ngi wàññeeku ndax 4 euh, ans léegi gannaaw bu ko fi ko defee bagage yi daal dañ koy faral di randal waaye nag euh, mënul wax ni moom la waaye daal bagage yi day faral di wàññeeku donc moom livreur bi nangu na waaye la la ñu gàll ci ndoddam nii Euh, vingt millions la moom yàpp nañ daal ci ay trois millions yooyu lay toll donc affaire bi daañu ko délibéré le na ko wax bari sàcc na waaye <laughs> liñ ko liñ ko wax ne sàcc ko voilà lañ wax dañ koo sàcc sàcc ko le 5 juin incha allah la ñuy euh, def boobu délibéré bu soobee yàlla Tapha Touré dana fa teew bu ko defee comme ni nga koy defee expert nga ci domaine bi nga nekk justice danga koy topp di ko teg ci temps ak ak ak <laughs> kaaw baa jaxate bi aussi ñu ngi la ciy xaar bu soobee yàlla voilà merci beaucoup chers internautes di la gërëm bu baax Zeyna waaw merci beaucoup naa la cantal gërëm ñeel na la ma mhm. sant la gërëm la yow it aussi mhm. euh, remercier sunu euh, maquilleuse bi muy euh, Minka Mali bu Minka